ngir ngay man di jot vidéo yi am solo yi bàyyeekoo fi ci Xidma production da ngay bës fi ñu bind sabonné bo noppé tek ci cloche bi Xidma production la scène du mouridisme أعوذ بالله من الشيطان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 bu aduna jëwut nag alakhirah du jar kon mënee suna sagane aduna ngir moy jaaru kay ñuy faggo ngir jëm ëlëk yowmal qiyam ngir am fa ngërmul yalla kon dañuy waxtani diine ji waye waxtani aduna ji itam nak diine ji mom lan ci daan wax rek lan ci wax ba legi mom day badal Islamu khariban fa sa khariban fa tuba lil khuraba islam day ci tumuranke la fi ñëwee woon mu neew mu neew doole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 kon mi ngi ni li xew mi ngi xewati ba legi rek yaman gañ leen daan wax ba legi ba legi arab saudi da ya ngay dal ci kawam ak ñam andal jullit yaangi tok di setan wante bi ci gëna metti nak moy Palestine kor gu jot ñu bon ñooñu dañ songu sun jàkka ju tedd joyé rey jullit ye gañ leen japp leen jul yépp ne ciel dara gënte metti lolu li tollu ak ni amé doole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 torture nit tak toraxal ko def def ko lo neex rek ngir lan ngir der gi nga tak ak solde bi mu lay fay ta der gi waajoo ñu ngi door mo jënd der bi mo lay fay solde bi ta buñ la ko noppi wona fay bala suba nga dellusiwaat ci rang yow ko ngay door nonu lolu mu la fay nonu bu la ko ton legi tay bala suba nga xamne ne gendarmerie gi solde bi ñu lay fay mo nga gëm gëmoo police gi béréb bo fi dem nag feeg àggagu ci kilifa ga ko ci rek dara kersa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 bi waji ji ci wate mu seugum sëgg mu ne ma sëñ bi bo waxut ga bo waxut lambay ñaaw de ma ne ko xool ma kon nga xamne limi def lepp moko tay bo waxut lambay ñaaw gis nga nañ delu ci wat xamne no bok rew mi kenn manu fi kenn nit ki la teral jox la soldu jox la ngànnaay jox la aw yat jox la fetal nga wàññee ko nak diko jo ca dóor du jom du gor nañ tek yefi ci yoon docteur yi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 bee waaji sété ba noppi xam nga lu mu ma wax ne ma sëñ bi da nga da nga da nga da ngay wàññi da ngay wàññi sa ndey joor te man ñàkk a tax ñu yóbbu fa mu ne ma da ngay wàññi sa nday jor jox ma ween jox ma randi bu weer mané ko yow di yow di bu yow di bu ñepp ma man maladie faatu chance bu weer kon gouvernement bi na dimbulé médecin yi def fay jumtu kay yo xamni yi nit ñi dañ ci mëna fayu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 in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma faltum nadimin yalla leen lam leen waxon bu ngeen ko defon li do am xabar bu nek balang ko jot balang ko joxe nang ko vérifier fam jaay yépp ba gis ne xabar bi deug la nga ko joxe waye fim tol ni bo bëgg gis nit ko wana fen dong gisal journaliste <laughs> da ngay xey suwa ba ngon liñ lay wax lepp bu suwa wéddi bu suwa mu tebbi ko ta fen de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 bu ngeen delu won ci mom bu ngeen ci wolé won diini ji ba mu sotti kon yef yëfaan yi ngeen di gis yep likoy sotal moy mooy delu wat ci diine yaraat nit ñi yar yaraa diine bu ñu leen yaree diine de jikko yu bon yi ngeen di gis yep du ngeen gis boba kuy jité da nga am jàmm waye bu ngeen leen yare ci jikko yu bon yii yéen ñiy jiite yéen njëkk am problème kon delu ci wat leen xamne li ngeen def baaxut président nak nogi lay wax ni rew mi metti na lolou